ci ndaje mi nga xam ne daje nañ ko tey ngir fas yéene tàmbali liggéeyub ñetti bare bu fajukaay yi nga xam ne moom lañuy ñuy ubbi di sant yàlla bu baax ci fi Touba ca kanam agsi di ci sant sëriñ bi ndax day Touba ca de bi nga xamee ne liggéey bi tàmbali na ba ñu dox ab diir taxaw di xalaat nag yi nga xam ne yu jàmp la ci dëkk bi te Touba ca kanam man cee dugal loxoom ba xalaat jëpp jëm ci wàllu wér gu yaram booba de téeméeri million moo nekkoon ci compte Touba kanam ñu doon ci xalaat a taxawal ñeenti bërëbu fajukaay loolu boo ko xoolee kon day mel ne xayma booba mi ngi nekkoon ci poste de santé bu nekk vingt cinq million lañ ca xayma woon a def sant millions yi ñu mën cee am ñeent waaye mu mel ne tawféex yi sëriñ bi teel na cee feeñ lool ndax poste de santé bi ñu njëkk a defar. bu lansaar te ñu ubbi ko lañ ca def dañ koy xayma ci téeméeri million ak juróom fukk te benn bu ne ñaar fukk juróom lañ doon xalaat booba ma ngay dox ubbi nañ ko 2018 yeneen ñett yi nga xam ne moom la ñu ubbi boo leen boolee dana ëpp ñeenti téeméeri million lu ëpp 400 millions def nañ ko ci ñetti poste de sant yi nga xam ne moom la ñuy inauguré tey liggéey ko liggéey boo xam ne teg nañ ko ci norme yu ñu war a liggéeyee li ñuy wax édifice publique bâtiment boo xam ne mbooloo mu ñu cay dugg di dugg ak a génn ñu liggéey ko ci norme yoo xam ne dëppoo nag ak norme yi ministère de la santé santaane ñu taxawee ko poste de santé ndax wax nañ ba tàyyi ne plan de base yi ñoom ñoo ñu ko jox. waaye ñu liggéey ko ci anam boo xam ne bërëb yi ñu ko def district sanitaire bu Touba booba Serigne Mouhamadou Dieng mii nekk régional bu Diourbel léegi moo fa nekkoon moo ñu jox orientation yi ñu waxtaan ci ba dëppoo ji samp ko ci gox yi ko samp dafay tekki ne euh, liggéey bi mbokki taalibe yi wuy nañ ci woote bi nga xam ne sëriñ bu woote woon na ko ñu ànd ak waa Touba kanam ci pasteef ak pas-pas ba taxawal lu ni mel ñi ngi ubbi tey jii ñetti bare bu fajukaay am yéene bu ñu màggalee ba noppi ñu ubbiwaat yeneen ñaar ndax bii nekk ndam daaru alimul xabir mi ngi ci finition yi bala nekk Touba njaareem tamit mi ngi ci finition yi bu ñu yàlla defalee tawféex ren ji balaa at may jeex war nañoo tàmbaliwaat yeneen ñett ndax bërëbu fajukaay ci Touba bu ñu sukkee sukkandikoo ci plan national de développement sanitaire dañuy wax ne Touba manqué na juróom-benn fukki poste de santé ak juróom-benn manqué na ko yoo xam ne waroon na fi am te amu fi ndax limub li fi am fi mu ne nii ci ñaar fukk ak ñett lay tollu xëy na buñ ci boolee ñett yi ñu ubbi day dem ci ñaar fukk ak juróom-benn nekk 26. li nga xam ne war na koo am ci ay euh, ay centre de santé war naa toll ci douze loolu nag kon day tekki ne liggéey bi des na te Touba ca kanam mébétam mooy carte sanitaire bu Touba mu dugal ci loxoom jàpp ci ba mu bokk ci carte sanitaire yi gën a yi gën a sell ci Sénégal te loolu lu yomba yomb la liggéey boobu nag bu ñu koy def Touba ca kanam ñi nga xam ne weer wu dee ñu joxe ci ñaari téeméer lu Touba ca kanam réalisé ñoom ñoo ko def te ñooñu mooy mbooloo mépp waaye ci biir mbooloo yi nag dañoo defaat ay pàcc am na ci wàll goo xam ne ñoom ñoo yor wàllu wér-gu-yaram am ci ñoo xam ne ñoo saytu commune bu Touba am ci ñoo xam ne ñoo fi nekkal Touba waaye ñëpp ñooy booloo tudd Touba kanam ci biir loolu liggéey yi nga xam ne Touba kanam mi ngi koy def secteur bi nga koy def bu nekk ñi yor wàllu wàll googu moo xam ci localité bi la moo xam ci gouvernement bi Sénégal la dañuy fexe ba dëppook ñoom déggook ñoom bala ñuy def ñu ànd ko mën naa ci joxe misaal Touba kanam fi mu ne nii mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci wàllu assainissement te ñu ngi koy ànd ak waa ONAS directeur ONAS ñëw na fi visité ne ko yombalal na bi ñu Cheikh Bass boole ak ñoom Cheikh Bass Abdou Khadre ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci jàppale gi muy jàppale Touba ca kanam jamono bu nekk bim ñu boolee ak ñoom ñu ànd ak ñoom lépp lu ñu soxla. ci raccordé ci seen ay réseau yombalal nañ ñu ko lu ñu soxla ci wàllu technique ñu ngi ciy taxaw naka noonu district sanitaire bu Touba bi Touba te kanam tàmbalee wax ci mbirum santé ak léegi ak di ci yëngu jamono bu nekk ñi ngi ànd ak ñoom di bindanteeg ñoom di jokkalanteeg ñoom ñuy taxawu Touba te kanam ci taxawaay boobu nga xam ne am na ko commune bu Touba dinañ leen sant ci seenu taxawaay ak jàppale gi ñuy jàppale Touba te kanam ci njiital sëñ Abdou Lahad Ka bi ñuy wax bi ñu fi indi oto mbalit yi programme bi ñu ci tëraloon waa commune bi pare woon nañ ngir jël personnel bi fay leen yàlla dogal mu Mountakha joxe woon digal ñu jox ko Baye Fall yi bi ñuy installé lamp yi équipe municipale lañ jox ak naseel ñu ànd ak ñoom liggéey bi bi ñuy def reboisement bi ñu ak ñoom ñoo ko ànd liggéey bépp bu ñuy def ñun ak ñoom ñoo ko ànd kon dañuy wax ne boo jógee ci euh, bërëbu fajukaay bi nekk Boberèle dem ci bi nekk Kër Gol diggante bi mën nga koo xayma ci ñaar fukki kilomètres yu toj yu teg loolu yépp ci biir Touba la liñ ciy déggee rek mooy Touba dëkk bu rëy rëy la boo xam ne faw kuréel yi fi nekk di liggéeyal sëriñ bi ñi fi représenté état ñuy boole doole yi di bennoo di jàppalante ngir ndam li gën a ngir ndam gën a yomb gën a bari ndax loolu daf lay yóbbu ci liggéey boo xam ne war nañ koo def bu yàgg yàgg bu fekkee def nañ ko war nañ koo yee salaat te mooy recenser population wu Touba ñu xam ñaata lañ. ndax bu fekkee OMS organisation mondiale de la santé dafa wax ne dix mille habitants fu ñu nekk fu nekk war nañu am poste de santé kon war ngaa daal di def yitte ci xam Touba ñaataa fi nekk xam ñaata bërëbu fajukaay la ñu war a bu fekkee dañuy wax ne cent mille war nañoo am euh, cinquante mille war naa am centre de santé cent cinquante mille war am hôpital ndax ci xam population bi ñaata lañ ci ngay mën a mesurer réalisation yi ngay def. man koo prioriser xam ba xam ban ban moo war a jiitu ak ban moo ci war a topp kon loolu war naa tax équipe municipale bi nga xam ne sëñ ab Lahad moo ko jiite ci état civil bi ñu informatiser ko liggéey ci liggéey bu wóor ba nga xam ne ñiy gane àdduna ak ñiy wàññeeku dañ koy xam ci saa si ak ñi fi dëkk si loolu day tax jamono bu nekk ñuy xam population bu Touba ñaata la ba liñ leen di mën a liggéeyal liggéey bi mën a dëppoo ak population ndax fi ne nii bu ñu demee ci ANSD seen i recensement li ci nekk par rapport ak boo jógee fu mel ne Boborel dem Kër Gol nga xool distance bi dangay xam ne li ñu wax ne moom la Touba doon ci population ak réalité bi dafa mel ne yàlla ak yaar yi te foog ñu xam ko ngir gën koo bàyyi xel. leneen li ci topp mooy lu jëm ci Touba ca kanam ci boppam position par rapport ak euh, administration bu Sénégal moo xam ministère yi la moo xam commune bi la lii Touba ca kanam di sàkku di ko ñaan ci ñoom. te ñoom ñu ngi ci woon waaye ñu gën cee def yitte dimbali ñu ci mooy ñu accompagner Touba Kanam administrativement Touba Ca Kanam accompagner leen ñoom tamit ba ñu relever défi yi nga xam ne moo nekk suñ kanam li tax may wax loolu mooy poste de santé yi bari na ci yoo xam ne bi mu paree yàgg na waaye ci ay waxtaan yu ñu war a waxtaanee ba xam naka la Touba Ca Kanam mën a dugale loxoom ci biir gestion bi ndax ginnaaw Touba Ca Kanam bu ñu waxee Touba Ca Kanam mooy population bi santé de proximité la bi. kon war nañoo fexe ba Touba ca kanam dugg ci gestion bi ndax Touba ca kanam mooy population bi te loolu dafay yombal communication bi ñu ciy soxla dafay yombal lépp loo xam ne soxla nañ ko ci population bi ñu war koo jàppee ci santé ndax Touba kanam bu ñuy wax mbooloo mi ñoom la waaye dafay mel ne loolu xam naa jël xaw naa jël temps bu baree bari ci loolu li mu laaj ci démarche administrative ci ay waxtaan ba ñu mën a am ak dëppoo aku déggoo ba Touba kanam mën a dugal loxoom ci biir li ci toppaat tamit mooy. Euh, ku nekk xam na ne collectivité locale yi dafa bokk ci seeni warugar mooy ñu wut ay partenaires ni ki nga xamee ne état wu Sénégal wala état yi ci àdduna bi yëpp gouvernement yi dañuy am ay partenaires de développement ay agence de développement yi nekk ci àdduna bi di ci dugal seeni loxo mën nañ ci joxe misaal lu mel ne PACASEN bi nga xam ne ñoo financé tali bii ñu doon inauguré démb ci taxawaayu monsieur le maire te mu nekk euh, kuréel goo xam ne banque mondiale ak agence française de ak état Sénégal ñoo koy financé. ñooñu ay partenaire lañ waaye bu ñuy ñëw ci ab dëkk di fa digal seen loxo di jàpp ci développement wu dëkk ba dañ ciy dugalaale seeni xalaat ñu koy yóbbaale. monsieur le maire Touba ca kanam partenaire potentiel ngir commune bu Touba Touba ca kanam kuréel la goo xam ne euh, ku sañoon am ko ci sa dëkk kon noo ngi sàkku ci commune bi di sàkku ci district bi di sàkku ci le sous le préfet ak le gouverneur ñuy jàppale Touba ca kanam ci démarche administrative yi di ko jàppale muy gën a dugal loxoom ci lépp loo xam ne war nañ ko def ci dëkk bi li tax may wax lii nag Serigne Mountakha daf ñuy jox ndigal ñuy déggoo ak di dëppoo ak ak commune kii yi fi nekk service yi fi nekk yépp ndax Touba kanam du kuréel goo xam ne dafay ñëw doon parallèle nekk fii di liggéey mel ne dafay wujje ak keneen wala muy di renteeg mbagg déedéet ndax Touba ca kanam du jëmm du ak nit. koo xam ne bu ñu waxee Touba ca kanam kooku ngay mën a joxañ Touba ca kanam mooy murid yëpp te ba Touba dee Touba léegi murid yi ñoo mas di takkatoo nekk ci ron kilifa yi ñu leen di joxañ di leen digal ñuy def ba Touba ak si fii mooy dëkk boo xam ne amul benn dëkk booy xool daanaka ci àdduna bi boo xam ne ña fa dëkk la ñuy sonne ci seen dëkk ngir mu jëm kanam toll na ne ni waa Touba di sonne ci Touba ngir mu jëm kanam loolu nag bu amee kuréel gu mel ne Touba ca kanam am dafay soxla ñu jàppale ko buñ tabaxee poste de santé ba noppi ñu ne dañoo bëgg a jàpp ci gestion bi nañ leen ko yombalal bu ñu tabaxee euh, beneen infrastructure bu mu mën a doon ñu ne dañoo bëgg a jàpp ci gestion bi nañ leen ko yombalal bu ko defee la cay tukkee ci wàllu communication tukkee ko ci rapprochement diggante service yooyu ak population bi loolu luy mën a yomb lay doon ndax kenn ñemewut a taxaw taxaw fii tey ñu ubbi poste de santé yi nga xam ne ministère de la santé mooy def affectation bi mooy mooy affecté infirmier ak sage femme jaare ko ci district bu Touba district régional bu Diourbel ak bu Touba nga taxaw di ubbi poste de santé te doo wax ne ministère de la santé moo ci jàppee lii ministère de la santé moo ci defee lii ba nga xam ne population bi nga xam ne moo tax ñu créé ministère boobu dinañ xam ne kat ñii ñi ngi ànd ak population bi di leen liggéeyal kon ñi ñoo may may may may daanaka la sama kàddu rek ci ne liggéeyu Touba kanam liggéey la boo xam ne Serigne Touba rek lañ ciy liggéeyal ni ko Serigne Abdoul Ahad di waxee Serigne Abibou di ko waxee murid yi te mooy Touba ca kanam jàpp nañu ne. dëkk bii lu fi war ñun la war kon ku fi ñëw di def dara dañuy jàpp ne ñun ngay jàppale lee ma doon wax léegi day jëm ci wàllu yoon ak administration yu ni mel waaye murit bu nekk li nga gëm mooy dëkk bi lu ñu fiy def lu nekk yow lañ koy defal boo xasee ba gëm loolu nag da nga jàpp ne lu ñu fi lu ñu fiy def kon yow yaa war a jiitu ña koy def loolu yi nag la mboolem muriti Touba ca kanam yi ànd ak Touba ca kanam ci liggéey bi loolu lañu xam moo tax weer wu nekk ñuy takkatoo di ci sonn suba ngoon guddeeg bëccëg di dajale alal yi dajaleem alal jooju nag liggéey bu rëy rëy la waaye la muy rëy rëy am na ko gën a metti mooy saytuwaat alal ji ba delloowaat ko fi taxoon mu murid di joxe ko loolu mooy baatu laaj lu ñu man di ko def fu ñu xam daay mel ne mboolem murid yi rek la mboolem murid yi ak seeni xalaat ak ñoo jëmal Touba ca kanam loolu nag kon day loo xam ne lépp lu ñu woote rek ñépp ci war a ndax lii ngeen def rafetlu ndax mbooloo lépp dafa jëm ci sëriñ bi ab liggéey nag balaa mën a baax nosu balaa mën a jëm fenn tam faaw mu tegu ci loolu nag mooy nosu bi rek te li ñuy jëf lépp nekk wenn sañ jëm fenn mooy tax jëf yi gën a mën a fenn te cheikh cheikh Mouhamadou Mountakha loolu bokk na ci xalaatam yi fi gën a ñor mooy mboolem daayira yi nga xam ne daayira yu mag lañ ne ci biir yoon wi mënuñoo bokk rek ndax ku ci ne da nga am sa mandarga bopp ndax bokkuñ bokkuñ ku ci ne fu la tax a jëm waaye leen tax a jëm leen da mooy Sëñ Tuubaa wallaahi ne rek da tànn ba xool saw doxin kon doxin ba dara waru ko soppi ndax ku ci ne da nga gise kulli xisbin bimaa ladayhim farihun ku ci ne da gise jëm fa ngir bëgg caa liggéeyal Sëriñ Tuuba loolu mooy saw yoon boo xam ne tege war nga jëm waaye nag na xam gën a mën a fës gën a mana a am njëriñ mooy ñiy jëf ñëpp xam ne lenn la ñuy xam ne itam Sëriñ Tuuba rek lay jëf moo tax jëf yi gën a mosu gën a nekk ni ko Sëriñ Tuuba bëggoon ndax bari na loolu ca xasida yi fu mu wax wala ñu wax chambre yaa رب اجعله مني وهذه حسنك الحسين والشر البارك bari na loolu Sëriñ Tuubaa di ñaan suñu borom na ko yàlla nga ma defal sama mbooloo ak sama njëriñ loolu daje na ko yàlla sax loolu nag nay xam ne kon lii dara jiitu mooy ku ku xewe wala ku wate sama wuyu si nag mm-hmm. xam ne li ñuy jëf li ma waxoon léegi ci seen digg maire bi rek gis ko lay def sax mm-hmm. ndax dimb bi mooy Sëriñ Tuubaa jëmm nag kenn mënu ko xaajale jëmm kenn mënu ko xaajale kon li ngeen bokk mooy sëriñ bi dégg nga mënta xaajaloo rek kon lii rek mooy da koy rafetal mooy ci kenn xew ne ba liggéey ba àgg rawatina liggéey xam ne waa Touba ci kanam ñu ngi ko def mu liggéey boo xam ne liggéey bu rafet ndax gàtt bu sëriñ ci dëkk bi nii ko ak fa daa noonu la def. dëkk bi li fi war bari na amul kenn koo xam ne nag yaa ma taxaw ne man kenn maa ko maa def ndax dafa yaatu rëy ba noppi li fi war a bari kon képp ku jub rek ngir seet waar bi nga xam ne xool nga ko ba mu dal sama xel ndax Sëñ Tuubaa mooy gindi te Sëriñ Saliou Mbacké daal wax ne xoolub taalibe bi fu mu kon da la sëriñ Abdoulaye Mbacke waxoon waa day def xëy laaj bi fàq day waxoon day lépp lu ngeen day ci seen biir te kenn dafa leen na ngeen xam ne waxuñu sëriñ loolu nag yéen itam na ngeen góorgóorlu te xam ne waral sëriñ say nga xam fu mu jëm xolu si góor di leen ñaanal rek yàlla dimbali leen sàmm leen ba fa leen bëgg di ngeen àgg rafet leen ci loolu rek dara lañ jëm xel ndax ki ci nekk sëñ Tuubaa Cheikh moom mu tax ndax daayira ci nekk bu Cheikh si Moussa Rassoul yàlla def mu rafet ko ànd boobu ngeen tàmbali ñëw ci kanam ba yàlla loolu bàyyi ko Cheikh moom mu tax ànd ko mu lim ci seere ci ay kàddu li mu ci wax ñun ñi sax mënu ci àgg ci yaakaar yu ñu jàpp yaqin yu ñu jàpp dëggu bi ci lay yaakaar yu ñu jàpp yaakaar seen tool rek yaqin la loolu kon na seen xel kenn te ngeen xam ne loolu ngeen doon ngeen gën ca bañ a te xam ne euh, yéen ci xisbullahi xisbullahi xisbullahi ku ci ne waroo ci waroo ñaar te mbooloo yi njeexteel sax ci ne suñ kon nag li ci am mooy ñëpp gën cee góorgóorlu gën cee def yitte gën cee te xam ne na ko wax woon fekk ndaje yi tabax su sant te sa kàtt sa kàttan ma yëg ma jël lu néew ko ci biir da nga xam ne am nga tuyaat ko tabax su sant mboolem jëf yi fi jëf itam moo ko def mooy bi nga xam ne def nga ko fi te muy loo xam ñëpp a gis résultat yi nga ndax dëkk bi li nga leen wax dafa yaatu li fi war bari waaye feeñal ngeen ci seen yéene def ngeen ci leneen man def ci li ngeen te dëkk bépp tam gis seen résultat yi te lii nga xam ne def ngeen ko fi yëpp itam leer bu ci ne boo koy xool loolu da leen sëkk ndax bi yokku loo xam ne deux mille quinze wala seize ba nëgë ni ña def fi réalisation yi def def nañ ko loolu kon xam ngeen ne Sëñ Tuubaa dugal na ci mm-hmm. ndax bu fekkee lu ngeen nar bu yomb lu ngeen woote nit ñi am ci xel am ci bési na ngeen am yàqe jënd Sëñ Tuubaa kon nag li ko rafetal rek mooy li ngeen def kon suñu daal yooyu tam ñu ngi lay sant di gërëm ndax sëriñ bi wax na ma léegi sa taxawaay ci liggéey bi te ñu koy xam ndax mosoo ci def lu ñu waaye yow tam ñu ngi lay ci soññaat te gën koo àndal ñoom ngir xam ne ñoom dañuy def yoon la ji dëgg la ndax day Touba Ca Kanam li def Serigne Touba lañ koy def waaye na yow li ci ëpp ci sawaar ko di la jàppale ci liggéey bi nga xam ne Serigne bi loolu daal gën ci jàppalante ak dimbalante rek ko gën a kanam ngir xam ne Cheikh Mawlou Moutakha yéen ñëpp moo leen santoon ne leen mosoo leen di ngeen di jëf. jëf ji di di ànd di nekk benn te yëngu di jàmm loolu nag mel na Sëriñ def na ndax ki fi nekk Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne nee na ci xelam tam xalaat ko boppam te kenn a sumbaat ndax li weesu moom def ngay ci ba def ci lu ko war a def yàlla leen ci yàlla gën gën leen ci dëgëral ngeen am ci tawfeex képp yow suñu yow yàlla defal yi nga xam ne sax nañ ci kër gi te dërëm bu ci waa def rek suñu borom nangu te xam ngeen ne kat jënd jëf ci nopp rek mën naa def daal daal ci biir ndax jëf yi ngeen ci jëf kenn ku ci dafa jaayante ba jaayante rek jëf ko matal bu ko matalee rek dana ci dajee ngërëmu suñu tubaab te ngërëmu suñu tubaab mooy ngërëmu suñu borom te ngërëmu suñu borom mooy li gën a ci lépp mooy li ñu sàkku ci àdduna ak àllaaxira waolelu waa billahi rek wa saaliku fawzul azim rek naa nag waxtaan yi foofu lañ koy jeexale ndax dañoo nekk ci diggalu sëriñ bi mu xaw a xat waaye nag lii xam ngeen ne dara jiitu ko ci li gën a ñor sëriñ moo tax ñu njëkke fa ba doon door woy dem ci moom door àgg àggale leen liggéey bi nga xam ne sant waaye kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di ñaan rek ci barke sëriñ bi balaa liggéey si déwén yàlla kattanal leen kattanal wut di seen am yéen bi ngay jëm taalibe ko jëm yàlla kattanal ñëpp ba fi ñu bu dee ñu def lépp lépp ñaar wala ñett ci barke suñu Tuubaa asalaamaaleykum